su production def lu bés bu rëy jël drapeau tuddee ko Xaadim Kase nit yàgg naa tuddee nit drapeau def délégation jël drapeau bi tëgg say sabar def say oto ñëw di ko présenté ci drapeau bi yéen loolu fekku leen ci yéen ak Xaadim fi mu commencé ci njënd ak njaay la tëbu leen rek tuddee ko observé ngeen ko xool ngeen ko jikkoom doy leen ndax nag da ngeen a ñëw di am ay journée comme ni ko ay da romb gis ay ñawam apprécier ko war fee ñëw pour décorer ay mbër ngeen ñëw mu jaay leen ay yére ngeen ñawal leen mu ñawal leen ngeen jënd ay yére ci moom loolu doyut ñuy sargalaat man mii ma bokk ca ña ñuy sargal ngeen ñëwati mu jaayaat leen ay yére ngeen waroon a mun a yem ak moom nag ci diggante client njënd ak jaay waaye ndekete yoo ci biir loolu lépp waaye yaa musu ñu ngi xool jikko ya ñu ngi xool qualité am ñu ngi xool fi mu bëgg a jëmale ñaw ñu ngi xool jomam ñu ngi xoom fulaam ak faydaam ba jël bés bi bës bok doom ju juddu ñoo yem doo ko tuddee koo soppul jikkoom ngeen jël ko nag tuddee ko bës bi mais naka ngeen ko ko tuddee xëy ootawu leen ko ci rajo defu leen lettre def délégation da ngeen xëy aloo xaadi mu ne waa nga ko yow la ñu tuddee bës bi kon ñu ngi leen di gërëm di ko teg ci loxo Pape mbay mii président bi euh, Pape nag di xale boo xam ne nit bu bëggee ngóor rek am jom am na jom nangu naa liggéey te wax dëgg yàlla lépp lu mu dugg fulla ak fayda la ciy duggee donc vraiment ngeen tuddee ko bës bi jox ko drapeau bi joxe ko ko noo xam ne dangeen ko tuddee defar lépp ba pare soog ko oo na ko tuddee nañ la bés moom looloo ko gën neex ci bés bi neex képp ku muy àndal moo tax wax dëgg yàlla mu ne nañ yëkkati kàddu gërëm sant jëmale ko ci waa su production di leen ñaanal yéen a xam nag li ngeen bëgg ci làmb yal na leen ko yàlla defal di leen xamal ne édition bi ñun ñu ngi xaar tey deuxième édition troisième édition yàlla nañu yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram bañ koy def ay édition yi édition drapo Khadim Kassé incha allah. Khadim nee na mu ngi gërëm mu ngi san à part gërëmaate rek sant gi nee na bés bi dugg na ko dugg goo xam ne euh, bi ma ooyee ñu waxtaan ci wax dëgg yàlla jël nañ fi décision yoo xam ne ndax it loolu maa ngi ko ciy gërëm di ko sant lépp lu muy def ci àdduna dina ma oo wax ceeg man te loolu yombatul donc ñu jël nag ay décision pour wane ne bés bi ñor na ko ñu ne ñun kat duñ xaar bésu làmb ji jot naka la ñuy def boo jàppale nit it da ngay teel a ñëw ñu ne bésu signature ba day buñ ne signature bi tey la muy altine dinañ ànd def suñ délégation buñ ñëwee ñaari mbër yi nga xam ne ñooy bëre suñ taxaw ci bësu signature bi dinañ leen may mbër mu ne fukki junne cinquante mille francs jàppale leen ko ci ay kaar ndax lu mu bon bon dina jël ñetti kaar kaar quinze mille quinze mille dina jël ñetti kaar junne ba tey des ñu jëndee ko ndox jox ko ñuy dugg ci kaar yi donc chaque cinquante mille chaque litre mbër mi nga xam ne moom la yàlla di jox ndam man duma ne ki mën ki yàlla di jox ndam dinañ ko jëndal xaru tabaski xaadim kasi mii dina ko jëndal xaru tabaski mu baax dina ko ñawal grand bubu bu rafet booleel ko ko ci ci tabaski bi loolu lépp nag bokkul budget boobu budget boobu bokkul ak li nga xam ne moom mooy enveloppe bi nga xam ne moom la war a jox yaa musu donte yaa musu xëj na séentuwuñ ca sax enveloppe dañ ko ko tuddee ndax jikkoom dañ ko ko tuddee ndax bëgg liggéeyam ndax bëgg kawlagam ne naa ko démb yow yow yaa ngi créer emploi sa atelier bi ay jeunes nga jël ñuy liggéey nga leen di fay loolu créer emploi la donc ci loolu lañ la delloo njukkal ñoom waa Yamoussou yow aussi nga ko bés bi ñor la nga jëlaat loolu ne drapo bi ñor na ñor nga ba xam ne man it dinaa ñëw bésu signature bi jàkkaarlook mbër yi jox leen mbër mu ne fukki junne jàppale leen ko ci ay kaar ñawal mbër mi nga xam ne moom la yàlla nar a jox drapo bi yàgg naa ñëw drapo jimaan mi xam ne li may wax dañ naan poids léger diw leen ko tuddee poids lourd diw leen ko tuddee poids nangam diw leen ko tuddee da ngeen ne xaadim képp kese kon jimaan yaag waa mboose yi ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal seen sit yi yéen a xam fi ngeen bëgg mu jëm yow aussi gagneur nga moom gagneur la jimaan yàgg nañ dunyaa maag moom moom daa bëgg lépp loo ko dugal xol la ciy demee xadar la ciy demee yéene la ciy demee te yooyu yombatul moom it donc jimaan yaa xam li nga bëgg ci métier bi yal na la ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu waaw DJ kon yow sama waa yi moom li nga li nga waroon a wax yëpp moom wax ko affaire bi moom euh, def na loo xamante ni daal rafet na rafetaay bi dafa ëpp parce que tuddee tuddee dafa am ak ak lang say xalaat ak lang say foog mais ñoom xalaatuñ si dara yaakaaruñ si dara fooguñ si dara dañ koo def te yàlla rek tax mm. waaw li ñu def nag lépp sama xol sedd na si waaw maa ngi maa ngi leen woo nag waa Kaolack gépp sama client yeeg waa Médina Baye ak ñoom ñëpp waaw sama client yi yëpp maa ngi leen woo ñu bis bi daal le 22 la ñoom ñëpp maa ngi leen woo estade ñu ñëw jàppasi bu baax waaw sama xol sedd na guy nag waaw baax na merci beaucoup